دغنا في كرب غايدي وخنان انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دغل جليت جليتي مبوكم الآية دي لي موي جيغي ني جيغي ني بوك ني لي دوخ انما المؤمنون اخوة واخي بوبوم لا تصلحوا بين اخويكم واخي بوبوم لا wattaqu llaha waxi boppam la laallakum turhamuna waxi boppam la ñoo si soo rapport yi bokkuñu li ñuy dox innama almuminuna ixwa xamle la faslihu bayna axwaykum santana la wattaqu llaha tëkku la laallakum turhamuna dige la ma ne innama almuminuna xamle la borom xam-xam a xamle dégg loo war faslihu bayna axwaykum borom baat santaane na gaaw leen ci wattaqullaha borom doole tëkku na tiit leen laalakum turhamuuna góor gu dul jeexal digée na yaakaar leen uxwatu diini aqwa min uxwati tiini wa nazab mbokkuk diina moo gën a wóor mbokkuk deret ak mbokkuk meen gisal ma jox la benn exemple bu sa bàyyi dee yéefar nga di jullit mbokk ga dog na du ngeen doonante boo dee jullit sa baay di yé soo dee soo dee yéefal sa baay di jullit mbokk ga dog na du ngeen di du ngeen doonante soo dee jàmbur ma di jàmbur ma takkala ñu doonante te bokkunu dara kon mbokk ga lee gën a dëgër gi nga xam ne euh, euh, ndonante yi suñu bokkeek suñu bokkul du dàqu benn solo ngi sax bu sew ñaari doom yu bokk ndee bàyyi saqiqa saqiqaani yatawaarisaani dañuy doonante su fekkee amul loo xam ne lii dañ koy wax uj bu irmaan dafa am uj bu noqsaan ak uj bu irmaan uj bu noqsaan mooy jëlale ci paar bi nga waroon a am puus la ba nga am lu gën a yées loolu irmaan nag mooy dootoo faf am ñaar ñu bokk ndee ak bàyyi te mënuñoo doonante sharia tax mooy ñaar ñoo xam ne kenn ku ci bi ngay judd juddu woo ci buum benn waay bu am doom ci ndaw te takku ko mu feral mu amaat te doom te takku ko ñaari xale yooyu duñu mën a doonante li ñuy bokk bokk ndee baay ndax sharia lañuy gestu mu ngi mel ni tey nit ku di jullit di liggéey di góorgóorlu di liggéey di góor góorgóorlu ba xëy muurti su dee doo ko donn yow doomam waaye ñu ngi aaye fi mu murteeg léegi waaye la mu doon dajale bi mu doonee jullit da nga koy doon sariya da la koy waaw sew sew la di dama moom waaw moom jullit la woon di doon jullit di ba xëy murti nekk yéefar murtada daal di nekk yéefar dootoo leen donnante mais ñàkk a donnante gi mu ngi yam ci fi mu murtee ak fi mu dee waaye ba mu doonee jullit la mu faggu woon ba bi mu murtee dañ cay doon kon inama almuminun ixwa aslihu bayna aqwaykum imaamu junaydi lan nañ ko ma aqwa laaj nañ ko luy mbokk mu ne fi aqiqatin huwa anta ila wa annahu shaxsun xayruk aka jaxasoo mbokk piir piir mooy yow mu ne yow mooy yow waaye nag ci dëgg-dëgg da di jeneen jëmaati xare ci yow dafa am sabaq am xulla am oqwa xullatoo gën a sori xaritantoo bu taqe ba taqa tëra deñ day jurug mbokkoo mbokkoo bu tëra deñ day jur day jur ak ak bëggante xulla moo tax kilifa gi li mu wax léegi di dëgg lii liimaan dafa am solo gëm وبشر الذين آمنوا بأن لهم جنة أن لهم ركلة لإنك عفى الصلاة بيتي إن باقي تجري من تحت النار وأسواج مطهرة لا أخطف دقل المنيقم يلا دين كوي قم نبي دين كوي دقل آمنوا بجميشي يلا قمل بجميشي نبي دقل قمنا يلا يبور دقل نبينا يلا كوي يوني لهم وخنا يوني تبيكو وخنا yàlla ne na bégalal ma ñooñu ci kër gu dul dàpp mukk ñu dëkk ko te ñu dee mukk dinaa leen fa ay jabar nag jabar yooyu day wuteeg seen i jabar moo tax euh, baraam bu baax bi ne sànq àjjana dafa dafa dafa foor te neex ba loo dégg mën a ci ay bu nit war nga cee sonn c'est rek wa aswaaju mutahara jabar yu laat laat ñett la laabu baayir ak laabu baatin ak baatini baatin laabu daayir ay jabar lañu yoo xam ne du ñu ñaq du ñu am kawari poqataan du ñu am ñandaxit du ñu am nelawit du ñu am tër dañuy pap koo koy laabu saayir laabu baatin bi du ñu gis reegal du ñu wasit du ñu génn tànk du ñu tuur ndox bu baati ni baatin bi duñu nag ku dul seen jëkkër gëmuñu ku dul yàlla waa soo jum taxar te wahum fiha xaaliduun